lanu suul Cheikh Fall mooma amoon fanweeri at ñu gënoon ko xam ci Boy Naar samedi ci ngoon ay ndaw wutali armeer ya sulli néew ba na mu ne dung ñu jël buum takk ca baat ba takk ca tànk ya diri ba ca digg mbedd ma taal ko jëppeet laata samedi yéeni kaay bi nee na àjjuma këruk Cheikh Fall te ñu ne ñu doon jaay seen bopp danu faa dëkkoon yi taal nañu ko gannaaw dogalub daayira Muxaddimatul Xima ma lankoon ñu rob ko ci sëgi Tuubaa yi sulli gënu ko sulli ca sëgi Kaolack ya ba nuppi taal procureur di ñaaw lu jëf ji ne it daanu ubbi enquête journal enquête moom gis ne ñaawteef fi la mën a yem ci xëtam gu njëkk yéenekaay bi fësal mbooloo mu wër néew bay tàkk nañu moom Cheikh Fall fanweeri at ak benn la amoon jabeta ko yóbbu ba mu faatoo it ay mbokkam fu nu ko yóbbu ñu gàntal leen bokk na ca Touba gan demoon source aane bu weesoo Touba it sëgi maalum ay mbokkam bëggoon nañ ko faarob ñu dàq leen yéenekaay bi dellu si ci dunduk Cheikh Fall ak li xew bam faatoo di sulli ganu ko muy dund nag yépp moo tax ñam bokkal sax danoo mujjee génn kër ga bàyyi kaak moom way juram bu jigéen moom laa tribune nee na xolam jeex tàkk la def ci mbir mi foo natt naqaram yéene kaay bi nee na weesu na ko vox populi nee ñu soxna soosa dey daa mujjee sax génn àdduna ndax ab crise bu metti la def lépp juddoo ci ñaawteef gi di néewug doomam gi sulli ba nuppi taal ko bés bi gis ci taal googa ne muñalante ci boppam lañu taal ci réew mi yéene kaay bi delsi ca xew-xew ba nañu danoo waroon néew ba di waye ka tàccu ak a fecc imaam puy bu ITV ne ab jullit moom doonte boroom ñaari turi la sax bu faatoo war nanu ko rob ci nu mu gën a rafetee ñaawteef gi nag moo tax procureur bu Kaolack diggéene képp ku ñu ci jàpp mu leer ne sa loxo taq na ci yoon dana rëq sa ndigga kàddu yum yëkkati ci yéenekaay bi di bés bi journal bi it di ñu xamal weneen tiis ne ñu gaal ga këpp woon ca gànjol ña ca faatu ña ngay gën a bari turbine di ñu xamal booba jamono ne juróom fukk ak juróom ñetti nit yu jëloon mbëkk mi itam réer na ñu mër ñeent ñoo muccagum ci booba leb gaal di ñaari ak benn jigéen ak doomam xale yu bari ragal yoon teg leen loxo moo tax ñu jël gaal itam dem bitim réew moom directeur exécutif Amnesty International Sénégal moo doonoon ganu grand oral ci réew mi TV samedi bi nu weesu réew mi quotidien nenu yëkkati na fa kàddu yu bari bokk na ci sàkku ci président Macky Sall mu xoolaat mbirum Ousmane Sonko balaa bee yey mbuus Seydi Gassama nee na bu nu mayuwul mbiram Sonko mi dana jur musiba ci réew mi DG itam jot na wàllam ndax Seydi Gassama nee na lànk gi mu lànk jox Ousmane Sonko fiche de parrainage tegu ko ci yoon Amadou Ba bu Pastef moom mi ngi ci loxol yoon ba mu génnee àjjuma ci ba tey ci vox populi avocat maître Ciré Clédor Ly ne ba fii may waxeek yéen waxaguñu ko lan la ñu koy toppee gendarme ya daal dañ leen a sant rek ñu dem jëli ko ñu def ko te teguñu ca baat avocat bi fàttali ne Amadou Ba mi moo waroon a yóbbu ca CEDEAO kalaame gi Ousmane Sonko di kalaame état bu Sénégal ci ni nu ko seppe ci liste électorale waaye itam ni nu tasee partem di Pastef libération ne loola cour de justice bu CEDEAO ëllëg ci talaata ji la ko war a àtte ak lu mën a am maître Ngagne Demba Touré moom nee na ñoom ay patriote lan te itam projet bi du ko mës a wor kàddu yum yëkk yëkkati ci yéenekaay bi di yor yor bi ca woowale waxtu président Macky Sall ñu ngi ko doon tuddee avenue Faidherbe bu Dakar Plateau Le Quotidien ma ngay waxit la ko wuutaleeg Amadou Ba Amadou Ba mooma na ma nga woon Thiès tertu nanu ko mu baree bari yëgle na itam ne yu bari daanu ko def ca dëkk ba Le Soleil ne ñaari hôpitaux itam premier ministre ci tournée économique chronique am bi yëgle na ni daanu ko tabax ca Thiès ak ca Mbour booba jamono réew mi quotidien di def ab xayma ci weeruk soññ ci cancer gi nuy jeexal octobre rose bi réew mi quotidien nee na bokk na ci liñ ci mën a jàpp mooy junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti activité de sensibilisation maanaam ñeex nit ñi ci ñu saytu seen wàllu wér-gu-yaram te fagaru ci cancer waaye itam fukki junni ak ñett yu teg juróom-ñaar téeméer ak juróom benn ci dépistage réew mi it nee na lijjanti nanu juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñetti lésion précancéreuse ñàkk nanu junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom-benn ci xale yu jigéen ci HPV 1 ak 2 docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ci yéeni kaay bi di xaale yoon yi mu jàpp ne bu buñ ca jaare daanu mën a jano cancer xeex ak moom na mu waree université moom xeex baa ngi fay wee ngir njàng meek njàngale mi dooraat Walf Quotidien nañu sayes dugg na ci xeex bi juróom-benn fan ak juróom-ñaari fan weeru bi ñu dëgmal grève lañu ca fas yéene amal Walf Quotidien ne université ci boppam moo ñàkk tey ay faculté am bés bi it yëgal ñu ne sayes soobu na ci xeex bi sàq ñaari fanu grève ngir njàng meek mi dooraat messi moom ndax day wéy di yi yeeg stade moo samp wileew laaj jëm ci cérémonie ballon d'or ba ñuy amal tey ca Paris bu juróom-ñeenti waxtu ci ngoon tegee ñeent fukki simil ak juróom doomu Argentine bi ku mayuwul mooy jëlaat yëf yi mi ngi ci yoonu wuutu Benzema kon Haaland ak Mbappé nag stade gis na ne ñoom itam ñu mën a fël lañ outsider la leen tuddee réew mi quotidien dem ak ñun ca Premier League nenu di ko laa Jackson waxante na fa kàdduy ñagas ak ab supporter bu Chelsea booba jamono ci wàllu box Tyson Fury am ndam ci kaw Francis Ngannou Ama Baldé moom Pikine yépp ñu ngi koy xaar